moom Cheikh Wade la tudd waaw moom demul dikkul waaw mi ngi ci machine bi dañoo lu mu am bokk ak ñun seen papa gars yi na mu waroon chef de quartier Guédiawaye waaw sonal ma benn yoon moom demoon na ci manifestation yi waaye moom moom dara drapeau la yoro woon di yaan jàmm di wote jàmm waaw ñu tiire ko bal ba mu gaañoo sax xale yu góor yaa na ba police bi rey na ko police bi rey na ko waaw waaye da ko xool ba pare image ko ngi koy doo gis da ko rey ba pare daal dem loolu moo naqari suñu xol ba par mu nekk xale amagul doom amul dara waaw di wote jàmm kooku xam nga deful dóoru nit reyul nit sànniwul dara waaw te mu waaw loolu lañ xam ci moom euh, amul jabar amul doom xale la Hmm. Hmm. atam nag moom fanweeri at ak benn. benn hmm. fanweeri at ak benn. moom ça va def moom euh, jour boobu euh, ban fii ci kër gi daal dem foofu. waaw ci suba gi man fekkuma fi dafa fekk ma dem jëndi këriñ waaw moom mu nekkati moom takk na ay dàllam ba ba mu ñëwee toog nañ ba heure bi yëg ba ñuy defar ndékki ci laa koy dañuy doog a woote ni ma ku tudd Cheikh Wade la ñu rey loolu lañ moo tax démb fii dañoo jooy ba bëgg a dee démb. moom euh, amoon na xëy wala. waaw ñëw doon kocc kocc rek ci machine am machine bi la yor nañ ci néeg bi doon kocc kocc rek di ñawal ay nit leen yóbbul lu waaw téer la woon lu am bokk ak man am na ñaari gramme bu jot a ñawal sax wante yor eggul hmm. ba muy dem moom yéen waa kër gi ah, famille bi am nañu yëg ne moom Cheikh moom gis na ko waaye benn seexam bi am seex boo xam ne mu ngi fee seexam jigéen la seex la seexam bu jigéen ma nga fee waaw moom gisu ko man gisuma ko ba muy dem ñun ñaar kenn gisu ko ci waaye kenn ko moom ba mu xam na bi muy dem gis na li mu sol moom ba mu dañu defee affaire yi rek la la ko xàmme waaye nangul woon wax dafa dafa dafa ragal. Hmm. Hmm. kon moom euh, si kanamam lañ ko rey. déedéet moom demul moom biñ ko audio yooyu vidéo yi la gis. waaw vidéo yi la gis moom la gisee mu xam ne kii ba mu fiy jógee lii la sol mu doog a xam ne kii seex la. Hmm. Euh, ki nga xamante ne mooy état bi tey ñoom euh, yan parcours lañ ci def boobu ak léegi ndax ñëw nañ fi seet si leen wala ñëwuñu fi. ah waa kër kii de fi ñëw Sonko waaw ñoom ñëw nañ fi ci guddi ñëw nañ fi ci guddi waaw waaw parce que dégg naa ñu ne dinañ ñëw tey de loolu la. loolu loolu la ci wax. loolu lañ ma informé de waaw. déedéet waxaguñ. da hmm? pare pour topp loolu. ah dañ koy topp moom dañ koy topp yàlla nag mooy rey yàlla moom lu lu lu am rek moom la parce que yàlla kon waaye ni mu ko defee moo ñaaw moom moom moom lañ li ñuy waaw bu doon ko def dafa dee kii rek naturellement sax amul problème da xam ne ku nekk la yàlla di rey waaye ni ko tiré bal bi moom loolu la moom moom moom métti sama xol. Hmm. seen diggante ak ki xamante ne mooy Cheikh Wade nan nekk nag jàmm rek ak dégg yor machine am liggéey kenn mosu ko atte kenn mosu am amut problème jàmm ak salaam di si gu xool nit wax ay man mi sax bu wax ay man heure la añ sax buñ ko lekk buñ ko jox sax heure lay doon ndax nitu kersa la moom nitu kersa la waaw. Hmm. Uh, yan nga nga mën a fàttali ci moom ay souvenirs yoo xamante xanaa aju ajuma daal la fi jóge ñëw ni ma maa maa ngi woon ca euh, euh, kii manifestation bi la ñëw mu euh, ajuma xam nga di ñu kenn deful dara ba dimanche mi ngi ci néegam tëdd yor portable am tëj buntu bi nag ba man ak sax bi dafa lëndëm doo ko taal mu tëj buntu bi ne pat ba ñu génn di ko woo añ sax toog na lu ba ñu bëgg a pare sax muy génn doog a añ waaw ci suba daal la ma xale ni ma seex takk ay daal la ba dem waaw dem na waaw boobu nag ci suba gi lañuy heure fekk lañuy doog a dégg ne gaañu ndek moom gaañu woon na bu yàgg yóguñu ci dara ñu ngi koy diggante 11h waaw euh, waaw diggante 11h midi waaw lañ ko faat jotoon nañ ko yóbbu sa neñu ma Abdou pour doon ko ñaw xaw ma waaw loolu yëpp wax nañ ko ci waaw mhm. moom si yéen loxo la nekk moom Cheikh Wade jotagoo leen koor eh, jotuñu ko dem nañu wante jotuñu ko ne jotaguñ ko mhm. sétéo la ne dan kàddu mujj yi nga xamante ngay tàggatoo tey ak ñi nga xamante ne tey ñoo say njaboot ak ñi nga xamante tey seen xol métti na leen parce que ñëpp xam ne métti na leen ne est-ce que xale yi duñ fi lan ngay wax jeunesse bi lan ngay wax xale yi tamit kooku ñëpp la métti ku ko gis rek bu métti ku ko xamu sax boo ko gis ñu ko xamu sax man ñi fi ñëw sax man ma leen parce que dañu image yi affaire métti leen ñu teg ni fi mooy sama kër ñoo jëma si ndax affaire bi dafa métti trop ñi ko gis ak ñi kii bi demee loolu moo leen métti waaw loolu moo leen metti ñëpp ñëpp ñëpp ñu fi ñëw xawma leen waaw ñu fi ñëw xawma leen waaw da nga sa ah, lan ngay wax li nga xam ne mooy Sénégal bi tey ah, xanaa ñu muñ loo ko yàlla te xam ne yàlla li la dogal moo ko dogal rek ñu muñ rek te xam ni yàlla moom ki ko def dina ko nit ba mu gis ko ndax bakkan dafa fort man ngaa def nekk ba mu des rey waaw rey dafa fort te loo xam ne yaa ko tey sax téere bal ba nga xam ne jub da nga doo ko sànni nit ki loolu dafa dafa metti ci xol naa muñ ba mu des moo ko fàttali ko sama xol day jeex doo mën a muñ mhm. waaw xale yu góor yi ko gis yi ak ñi ko jàppoo ñoom da leen a metti parce que bi affaire bi am policier bi ñëw na ba tim ko taal atom dem waaw xale yu góor nag loolu moo lay metti am na ci xale bu góor boo sax moom yaram bi yëpp a taq deret ndax ñu ngi ko doon sauvé waaw loolu metti na trop ci xol tey jeunesse Sénégal xale yi lan nga leen wax tey ñoom yan conseil yan kàddu nga leen di digal tey ñu toog euh, bàyyi li nga xamante ne tey mooy violence bi euh, ah, dara moom la yor woote jàmm kooku sànniwul xeer deful dara koo xool ko ci image bi da nga xam ni kii nitu jàmm la doon def ba koo xam deful ay kii def ay nga war koo dóor sax wala nga def ko ndax day fekk muy sànni wala mu yàq waaye koo xam ne ki dafa nii woote jàmm ah ba nga yor drapeau koo xam ne kii jàmm lay wut yor téere ay bal xale yu góor yi muñ rek te xam ne itam ah, lii yàlla moo ko man la gën a naqari man mi ko jur mhm, man la gën a naqari waaw xanaa ñaan yàlla rek sant yàlla yàlla xale ko ci àjjana bi àjjana yu kawe yi ñi nga xam ne ñoom moo leen dal ñoom ñëpp itam sunu borom jéggal leen dàqaleen seeni i bàkkaar te xam ne lii moo gën waaw yàlla seen waajur yi yàlla jox leen xolu muñ ñu muñ te dee ñaan na fu ñu toll waaw loolu la ñaan yàlla ndax yàlla moo ko jox moo ko jëlaat waaw ma ay morom waaw ñoo bokk waaw ñoom ñëpp ñoo bokk deseen te ñoom ñëpp am nañ waajur comme waajur lañu comme man metti na leen waaw waaye bu seex bi daf cee gën a daf cee gën a siiw trop trop trop daf cee gën a siiw moom dafa làqoon fa di gën a siiw moom ñu ngi sant bu baax a baax Bamba laa tudd Jóob laa sant waaw waaw mbir mi de danoo bett ndax man mii tey goro laa ci kër gi ndax sama soxna ak euh, ku jigéen ki jur Cheikh Wade dañoo bokk ndey ak baay lu ci bari nag bu xewee fii te muy jàmm walla lu mën a doon man la ñuy jox cër ma wax ak ñoom euh, sox euh, moom nag wax dëgg yàlla sama péete la woon waaw ku dimbali woon yaayam la ndax fii la ne woon daan liggéey yére bi mu mujj a ñaaw sax yaayam war na ma ko démb ay mbir mi nag danoo bett waaye ñu ngi ciy pexe nag ba tey jotaguñ ko te tey la ñetteelu fan te ñun euh, euh, rey nañ ko ba ca suba sa ñu soog ko yëg kon wax dëgg yàlla état bi war nañoo def ndimbal ci loolu waaw ndax koo xam ne da nga ko rey ba pare récupérer ko donc mënoo ko te ay bokkam néew euh, waajuram néew doole loolu wax dëgg yàlla état. moom moo war a jël responsable am ndax comme dee na ku dee moom dee na waaye benn bakkan kenn da koo mënta fay waaw saakub ceeb boo ci jëlee wenn fepp sànni ko daa mel ne yàq nga saaku ceeb bi te nit a ko gën a for ndax suñ boroom dafa wax ci alxuraan lu ma bind nit a ma ci gënal kon nag bu lii dalee suñu kaw nañ ñu taxaw ndax ñoom ñetti fan la tey tey ñeenti fan gisuñu ci kenn ci ñoom te mënuñoo fexe ba jot koor bi ay pexe yu bari nag ñi ngi koy def waaye nag ñu état moom moom réew mi waaw te ci ay loxoom la dee kon nag ñoom dañ doon war a taxaw ay bokkam nag am na lu bëri mënuñu ko wax ndax ñoom ñoo ko jur te réew mi daa naqaree wax loo wax rek ñu ne ah nii nangam kon nag ñun ñi nga xam ni dañoo ñëw ci famille bi ñu boole ñu ci famille bi ñu mel ni ñu bokk ak ñoom day ak ñun ñoo war a wax ni mu demee machine a ngi nii day ñaw <clears throat> machine baa ngi biir day liggéey guddeeg bëccëg añ bi ñu ko tibbaloon ak ndox mi mi ngi ci biir seexam bi mi ngi nii bëgg a dee ci suñuy loxo ndax ay jafe-jafe kon nag war nañ ñoo dimbali ak nu mu mën a demee moom état danoo war a taxaw seet si sax wax ne nuy ah ma masawoo coono loolu dafa baax ci état waaw ñooñu yilif ak nu mën a demee mun état moo ñu yilif kon nag maa ngi woo Macky Sall mu dimbali nu waaw te taxawu na nag jot na waaw ndax nag nit ku deele ñeenti fan munoo jot ci néew bi metti na waaw loolu rek laamoon lu may wax waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw Sonko tam ci la bokk ndax démb yabal na fi ndaw waaye nag bëggoon naa moom it bu mënta ñëwit nafi yabal ñoo xam ne ñu am maanaa la ñu ñëwee wax ak ñun ndax lu bari ci loxoom la jaare Sonko maa ngi koy woo bu baax a baax waaw waa kër gi waaw waaw nañu taxaw bu baax a baax ndax am nañu jafe-jafe ñoom nag ñoom ay gor lañu duñ ko wax man mii maa koy wax ndax xam naa ni mu demee waaw jërëjëf lii rek laa yéen nag yéen comme ñëw ngeen fi euh, su ñuy wax ngeen yóbbu ko àdduna bépp jot ko man démb ba tey dañ may woo. te ko loolu lu am solo la. maa ngi sant média yi bu baax a baax a baax. fii la daane doolam machine bii la yoroon. koñ bii nag moo leen daan ñawal ci tabaski ak korité yëpp chaque jour nag moom guddi ak bëccëg fii la nekk di daan dooleem gis nga machine bi sax lu bari da ko yeew ndax njàmbaaram. yaayam ji dong la amoon nag ci àdduna ak rakkam yi kii seexandoom la ñoom ñaar ñoo ñëwanoo àdduna gis na tey ñetti fan a ngi nii ñun sax fi mu ne seex dafa mel ni suñu xel nekkatul ci moom ndax seexam bi ndax day jooy rek du lekk du naan ndax jafe-jafe bi ndax seex da koo jàppale woon ñu bokk lépp kii magam la ñoo bokk ndey ak baay ak ñeneen ñëpp ay rakkam lañu te moom góor la te ay jigéen la jaboote soxna si yàlla da ko dimbali ci njaboot gu jigéen kon maa ngi lancé appel àdduna bépp ñu ngi ñuy seetaan Macky sàll ñun day wax dëgg ah duñu yalwaankat nag waaye nag comme sunu doom ñàkk nañ ko te amuñu leneen lu fi sës nag nu dimbali bëgg nañ ko man nag damaa ñëw ci ñoom nekk goro ci ñoom te gis lépp fekk lépp ñoom wax ji ma wax sax ñoom duñ ko wax ndax jomm nañ ko wax waaye man danaa ko wax sama soxna ak yaay xale bi ñoo bokk ndey ak baay li fi xew xam naa ko bu baax a baax Euh, borom réew mi nag yow yaa réew mi lii ci sa loxo la xewe maa ngi lay ñaan ndimbal nga taxawunu ndax néeg bi kat la doon defar te eggagul woon sax far yàlla def yàlla mi nga xam ne nag mooy rey nit nit du rey nit yàlla mooy rey nit mu demee nii. Abdoulaye Wade grand frère sa Wade grand frère Cheikh Wade. grand frère Cheikh mhm. Wade. ñu gis ko faat euh, keroog ci ay manifestations yooyu passé mu daal ci ñàkk bakkanam boobu ak léegi ban taxawaay lañ ci def ak boobu ak léegi tamit. waaw que métti bi moom ñun ñoo ko bokk quoi c'est pas la famille rek quoi Sénégal ak nag laa njëkk commencé parce que déplore gis ñu seen présence fii waaw mën nañu bu dee opposant moom gis nañ leen ndax ñoom ñoo fi njëkk a teew au moins état bi ñoom ñoo def seen affaire ñoom ñoo indi crème bi yëpp ñoom ñoo fa war a njëkk a teew waaw gis ñu leen ba tey daal mais xaar ñu si ñoom yooyu ñun lu ñuy xaar si ñoom mooy justice bi rek que affaire yi leer quoi mooy important waaw. ñu far ko depuis dimanche boobu ak léegi ko euh, depuis lundi boobu ak léegi ñu mën leen fexe ba jot ci koor bi lan la. waaw nii nii sax dig laa jógee nii parce que fa la waroon dem après dossier njox procureur mais daal dig daal ñoo yor enquête bi nii lu ñuy wax tey entretien man ak ñoom jox naa ni ko coordonné lépp wax naa ñoom nee nañ am na am nañ sama accord pour def plainte bi quoi léegi plainte bi jàll na pour pour vous confirmer que ni dig moo yor kii bi moo yor bi nii waaw. non enquête moo moo moo des parce que bal si bopp la bal moom si bopp la parce que ñoom bañ demee nee nañ faaw ñu jano si waat ko parce que médecin bañ amat rendez-vous 13h 13h après agent digg bi bu jotee papier dina dem. jox ko procureur waaw après daal ñoom ñu xool woo ñu kañ lañ tax nañ mën a jël corps fii ak 15 heures 16 heures daal waaw loolu lañ sama ko. ban heure nga centré li nga xamante ne mooy Cheikh Wade gi jóge na ci kër gi dem ci li nga xam mooy ci manifestation yooyu. man démb ba ma ndekkee ba pare parce que démb lañ ko yëg ba ma ndekkee ba pare même pas 10 minutes. Mm, démb lañ ko yëg. waaw démb lañ ko yëg depuis lundi la mais ñu ngi gis xam ne moom la mm-hmm. parce que yow sa xel du nekk si ku jógee Cambérène ak ba croisement xam nga na distance bu gudd la waaw. Ah, nemmeeku woon benn si biir nañ ko ak maire bañ xëy fajar la ma ne euh, fanaanu fi par la suite dix minutes après ñu jot ko de film ñu ni après lañ dem vérifier au niveau de l'hôpital ñu wan ni photo bi ba ñu wanee photo bi nag ñu toog xam ne moom la ñu ñu gëm yàlla rek ànd suñu sang-froid ñu dem gis corps mais bañ gisee corps bi lenn mooy jooyloo mooy bal bi bal si bopp quoi mm-hmm. ak loolu

image mu ngi daw si presse gis ngeen seen télé ñu ngi koy wane policier bi comme comme un sniper boo xam ni dafa taxaw visé ñaata mètre la visé moo ki mu tiire kooku yorul arme yorul xeer yorul dara nekkul ful buy daw si kawam mu jël gratuitement tiire comme ça loolu est-ce que yor na maanaam yonul maanaam koo xam dafa manifeste yor drapeau Sénégal nga tiire ko wàcce waale drapeau boobu loolu militaire lañ koy def kuy xeexal réewam dañuy rayee noonu mais pas un citoyen ah depuis boobu ak léegi li nga xamante ne tey mooy côté Ousmane Sonko ñoom yëg nañ ko ban réaction lañ moom ñu ngi may nemmeeku vraiment ñu ngi may nemmeeku luñ toll ñu ngi may laaj xam nga démb rek lañ fa mujjee ñëw seen délégation waa PASTEF di remercier encore te pour man loolu état bi lañ ñoo waroon njëkk def loolu ñoom ñoo faroon jiitu mais waaw waaw ñun du question politique quoi lu politique mais xam nga bàqan bi moo ñu gën a politique moo ñu gën a ay milliards mais tamit taxawaay bi taxawaay bi ak jékki-jékki bi quoi waaw moo si solo. tey ban message ngay laajte ñi nga xamante ne tey mooy ndaw ñi ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci manifestation yi te am na ñeneen ñu si ñàkk tamit seen i doom. si manifestation moom mënul ñàkk si réew sax waaw mais pacifique lañ wax quoi mais ñoom bañ gisee sax pacifique lañ def parce que koo xam deful ful buy dem si policier yi nga taxaw ne la comme un sniper visé si bopp nit koo xam bu doon mala sax doo ko visé foofu def ko gratuite loolu jarul enquête sa waay loolu dafa leer policier ñëpp gis ko commissariat parcelle bii la nekk ñun ñoo xam kan la c'est facile loolu waaw di leen remercier rek di wax tamit manifestant Sénégal tant que yaa ne gisoo lu la neex moom am nga droit génn di ñaxtu mais pacifiquement amul yàq amul def dara waaw dal am nga droit manifester police bi accompagne la mais pas de tirer sur les citoyens quoi waxtaan ak ñoom itam waxtaan waaw waxtaan nañu man père lu ñu wax tamit confiant na na lépp moom mu ngi seen loxo te dina leer nañ incha allah ñoom ñu leen di rek. waaw mais ah. juste bu amul sax kii fii ku di nit ku ne ak sa conscience tranquille boo tëddee war nga àtte yoon policier bu def loolu moom est mu ngi nelaw est-ce conscience tranquille na moom na démasqué rek léegi mu gën a facile si moom loolu ñoom bu ñu àttewul lu jaaru yoon tamit ñoom duñ ko am conscience tranquille parce que bakkan doomu aadama lañ jël waaw loolu lañ loolu la ñu xaar si ñoom comme ñu leeral kon nañ